nan jox sëriñ bi suñ lépp te xam ne moonu gën ci suñu bopp sëñ bay jaxate daf ne ko yaanu gënal sunu ndey yaanu gënal sunu baay yaanu gënal ku nu am mu ne ko mbay dikkal ma wax la li ngay wax dangay wax ne yaa gën ci ñun sunu ndey yaa gën ci ñun sunu baay yaa gën ci ñun ku nu am li may leen manal bu leen ko seen bàyyi manaloon duma leen gis de kon nag mbir yaa ngoog nanu sëriñ bi gën lépp nanu gën lépp bu ko defee daal ñun ñëpp suñ aaju dana fajo fii ñu nekk ci àdduna te ëllëg lay raw allahumma salli ala sayyidina muhammad